acteurs yooyu nekkoon Côte d'Ivoire numéro yëpp ñuy waxtaan yëpp wax dëgg fa yàlla kontaan naa trop daal kontaan naa trop macha allah. parce que moom bi fi jógee bi mu jógee euh, Côte d'Ivoire dafa feebaroon dafa feebaroon quoi ba xaw a sonn kii bi di ko traité ba yàlla mujj def mu décédé quoi parce que moom magam mi ngi fii Sénégal xamoon na ne am na fa jabar xamoon na ne aussi am na fa ay doom. c'est ouf de joie vous pouvez pas comprendre actuellement ce que je ressens. Je suis la tante Ami Je vous remercie tous. Dieu merci, on a retrouvé les parents de Amikebe. Je vous remercie tout puissant. Merci beaucoup. Je vous ai. Merci beaucoup. Parce que les parents, un Même si tu n'as pas parent de papa, ça, ça ne notre cœur. Aujourd'hui, on peut bien dormir. Aujourd'hui, on peut manger. Merci beaucoup, Dieu. Merci beaucoup, Tout-Puissant. En tout cas, je suis vraiment heureuse. Je remercie euh, la RFM pour tout ce qu'ils ont fait pour moi avec toute l'équipe. Vraiment, Dieu saura vous récompenser. Vraiment, merci. Dieu saura vous récompenser. Inch'Allah. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. euh, mon cousin Simba, qui est le petit frère de, euh, le grand frère de mon papa, qui s'appelle euh, euh, euh Tai Kebe. En tout cas, vraiment, je suis vraiment émue. Je suis vraiment heureuse. En tout cas, la RFM, vous êtes au top. Il n'y a pas l'homme pour vous. Merci, merci, merci à tous ceux qui m'écoutent. C'est Ami Québec qui vous parle. Je vous adore, je vous aime. Écoutez toujours R et la Salawas R, RFM. Je ne sais pas comment prononcer le mot là, mais je vous adore. dafa euh, waxee xol dafa kontaan. réer ba feeñ moom. man am na ay mbokk yu sant Kébé de Babou ki réer bi yow de yow de Sénégal yëpp nga bokkal. macha allah ku baax ci réew mi rek bokk nga ak moom Ndiaye <laughs> ku baax ci réew mi rek da ngaa bokk moom tey moom euh, loo dégg lu baax rek man maa la ko wax bàyyi ba bàyyi ba émission bu mag bi. commencé xam nga émission bi sax ay ñaar nit ak ñett nit da koy bàyyi xel ak yooyu ñoo ah. déglu. avant mhm. première ligne. <laughs> <laughs> yéeme na. Uh-huh. ma. Mhm. waaw. am na benn xale bu ñuy wax ne dafa taal papam waaw. Mhm. yëg nga ko naa ko waaw. loo ci am. loolu la tere nga woo ma ci weekend bi. ni ma lijjanti lool comme na nga ko daan defee. xale bu taal papam non benn xale bu góor la bu taal baayam. illah ak yaayam doon doon sëy. divorcé. yaay ji dem ñibbi kër fameem bàyyi fa doom ju góor ja waaye ci ci ci ci source yi ma am maanaam ci xibaar yi ma jot paa bi da ko daan wax maanaam ay wax yu déplacé wu ci yaayam sa yaay lii sa yaay laa pendant des années xale bi di dundee noonu ba màgg ki démb nag paa bi takkub séet ginnaaw moom doo nga nekkoon ak doom ji mu takk seet indi ci kër gi te indigu ko ba ñuy ci jouru céet ga ba paa ba nekkee ci néeg ba di waxtaan ak xaritam ba xarit yi génnee ci la doom ji dugg ci biir néeg bi ni ko traître nga nettali ko yi ko paa bi daan wax affaire yooyu parce que dooma téye xas ma pendant des années bés ñëw nga bëgg maa indil tante ci biir kër gi su même su tante ji ñëwoon sax affaire bi dina gën a tànk booy bi dem wuti essence xëpp ko papa ji taal ko gaa yi nekkoon ci xew ba gàddu ko yóbbu ko hôpital ban ko yóbbu hôpital ci suba ga la faatu waa ji jàpp ni ko jàppee Taïba Ndiaye bërki démb lañ ko jàpp ba Ndiaye yóbbu ko brigade bu Tivaouane jamono ji ñu ngi ñuy enquête soit dinañ ko defee rek ngoon wala ñu defee rek ko suba wala ginnaaw su moom moom film ay affaire am moom euh, paqueté nañ ko ba pare. noonu la demee vingt deux ans la am. voilà yooyu daal am c'est un jeune boo xam ne daal noonu la demee moo tax daal li mu def kenn rafetul ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mais tamit euh, parent yi nañu moytu di xas yaayu jàmbur. Mm-hmm. nekk nga sama papa d'accord dama am yaay nga am yaay li nga may wax ci sama yaay même su fekkee yaay boroom këram yaa nekkoon boroom këram. Mhm. yi ngeen doon séq yam loo doon def yaa ngi ko doon def yéen ñaar la. Mhm. man doom rek laa mhm. aw ma droit di xam nga may wax yenn yu déplacé wu. ci sama ci sama yaay. te soo demee bu jur doom joo xam su la nee nikk téye doo yëngu. da ngay xam li nga ko wax ci yaay yaayam ah. parce que yow mii yow papa li ngay wax lii sama yaay nangu ko ko wax sa yaay. d'accord mais ban. voilà rey nag moom. nañuy jiital xeer lekk xam nga lu tax. Mhm. moom xale bi ñàkk na bàyyi ñàkk na yaay. waaw li mu ñàkk kay bari na. papaam dee na. Mhm. te li ko faat moom génn ci. ñàkk avenir am. ñàkk liberté kon ala mhm. kul yàlla day dem kaso. te du doon du bàyyam. ba noppi nag teg yaayam fitna. parce que pour lu ko génnee ca kaso ba. ay avocat dem ci sëriñ di ñaan lu comme Sénégal fii loolu lañ xam. Euh, yu bëree bëree bëri fi mu ne ci ndoddal yaay ji la tege. yaay ji nag jarul muy sonn. ku rayee sa bàyyi nii moom jarul dem ci sëriñ bi ñaan doom doom la rek doom doom la rek mënu ci dara doom doom xëy na paa bi warutoon yegg ak moom ci di yeggee xale bi lu mu mën di doon ci këru àdduna waratoon a yegg ci di taal ba ah. xam ne lii de. kër daal soo fa dëkkee ba xam ne lii nii. sax bi ngi nii lor na boppam. dëgg la mais tamit. papa yi nga xam ne ñi ngi déglu xaala xalaas jamono ji am na ci ñoo xam ne ñi ngi xas seen doom ju góor naan ko sa nday lii sa yaay lii nangam nañ arrêté loolu kenn warta xas kenn c'est pas parce que yaay bàyyi xale bi kër da ko war a wax yu bon a bon ci yaayam c'est la même chose amul jigéen tamit warul taxaw tiim doom di ko wax yu bon ci baayam Ah, loolu yooyu ëpp nag. waaye yooyu dafa bari dafa am ci biir kër yi ëpp nag sa yaay lii sa papa lii sa yi non nañ arrêté yooyu parce que tey koo xam su dem màgg na soo solee daal bi sa daal yi mën na ko sol sol sa yére su la nee tëkk poñe doo nooyi kooku da xam li nga wax ci ba li ngay wax li ngay wax baayam yow la yaayam da nga ko xamaa ah. hmm. voilà te booy toog xale yu góor yi nag jeunes yi ku ci nekk ci kër ba say dégg loo xam ne waru ko dégg nga xam ne li njombe la lay jural génnal kër ga génnal kër ga bàyyi sa bàyyi kër ma xaste tamit quoi nan bàyyi xaste nag looloo looloo tax liñ songoon keroog liñ songoon keroog keroog àjjuma keroog àjjuma aba euh, bu garaaw aba hmm? yaay fàttaliku femme bi rayoon gorom kunun boobu benn femme boo xam ni gorom la rey kunun sotti ko ndox mu tàng hmm? ah moo tax xam naa rey ko maanaam sa yaayu jëkkër nga rey jëkkër ji nag moo fi ñëw keroog àjjuma di nettali mais wax jee yeggul woon. jëkkër ji bitim réew la nekk. waaw ah non moom moom élément. waaw moom waaw élément bee fi ñëw. Mhm. mais wax jee yeggul woon. déglul déglu de mariage bi ak sama bulletin de naissance doom. man ne damay dem Tëngéej pour def demande divorce. fa bàyyi ko ci kaw de. wàcc ci suuf noonu teel sama yaay ma ne sama yaay ma a yaay maa ngi génn. bi may génn may dem ci côté boutique ba gis naa ne sama topp na ma maa ngi ko gis dafa mel ku lay bàyyi rek dugal demal topp ba ci suuf noonu ba ci bi mbedd bu man gis naa ko mais faalewu ma ko mais xaw ma woon lan la intention lan la ma jël oto dem bi ma demee ba tënkee ba war a ci taxi bi ba war a yegg ci buntu tribunal sama nijaay woo ma téléphone mu ne ma soit de daal lan sa kër ma ne ko nijaay lan moo xew ma soit dóor na meer nii waaw nii sama nijaay na ma soit dóor na meer bi mu ne ma ma ne ko léegi laa génn kër nga mu ma loolu la amee. dellu ma delluwaat dugguma buntu tribunal ba léegi ma delluwaat ak taxe bi ma dellu ñëw kër ga fekk coow li bëri ci koñ bi fekk maire bi ci dëkkandoo yi ma dem dugg fa maire bi ne ma suwaadu de ma def lii ma ne ko nga ne ma ma la ko def fekk ko ci yow ma ne ko suwaadu li nga def ñaaw na te dama lay wax dëgg tey di nga doo fi fanaan tey ci kër gi doo fi fanaan du ma ci kuloon du ma ci xeex ne tey doo fi fanaan ma jox noonu dem jël oto dem dugaar dëkkam toog ak ma toog ak nijaay toog ak baayam ki ko maye woon ak maamam ma wax leen ne kii dama bëgg mu ñibbisi bu ñibbisee ba pare nag ma réglé problème ba pare dina xam ni may def ñëw bi ma ñibbisee man ne ko am cinq mille ak ni dama ñibbisi jëlal sa bagage nga dem toog jëlul bagage am dem bàyyi ko fa faalewu moom ko doy xoolu ma ko déggu ko un mois yaayam woo ma ndeke dafa doon xuloo ci seen kër kon ko li ngay def nii <laughs> fu mu yaay moom daa fu mu dem xuloo fa non dóor na yaayam bi ko jur yaayam du ko jur sax dóor na ko ah dafa dem foofu dóor yaayam rakkam yi jàpp ko rakkam yi koy taxawu tey tey tey ñu koy taxaw tey. waaw ah. ñoo ko dóor boobu ñu bisi na fii. mu dóor yaayam dóor yaayam ba ñoom ñuy fanaan ci waañ bi moom ak sama doom. d'accord ñu génne kër gi. dañ leen génne ci biir néeg yi muy fanaan ci waañ ba moom ak doomam. dafa jëkkër xeex ak magam. xeex bu metti ñoom ñu magam bi daw dem kër jëkkër toog léegi moom mu nekk foofu ak yaay gi dóor yaay ji. ñu yu góor yi dóor ko. di ko fanaan lu ci waañ bi ak doomam ma la may naa la sa baat jëlal sa bagaas nga dem te la ñëw nag jël rajo technique yëpp def li naa ko waxatuma ak moom fàlletuma ko dafa fekk bi xam naa maire mu toog ci salle bi tuur ko ndox ku tuure ndox loolu doy ko comme maire bi day yuuxu baat amatul baat léegi mu diri ko diri ko yóbbu ko ca fond bi ci néeg bi ci fon bi foofu ci maanaam bi fond bi foofu ci néegam néegu meer bi la defee li mu war a def. ndox mu ndox mi la ko rey wala da ko jam. xam nga dëgg rek laa lay wax comme ñun ñëpp ay ancien militaire la ñu man classe quatre vingt onze trois la sama kër de liñ ma wax exactement liñ ma expliqué jour enterrement bi noonu mu ne ma vraiment ma maa gisal sama bopp sa yaay te yaay yaram bi yëpp yàqu na ndax ndox mu tàng ba pare dafa rendi sa yaay rendi soo seetloo mhm. ndaw si ci waxi jëkkër ji mhm. dóor na yaayam moom bi ko jur yaayam bi ko jur dóor na sëram bi mu bokkal ndey baay ba sër ba daw ñibbi ñibbi ñibbi maanaam bi ko jëkkër ji ne demal seen kër ba mu fa demee loolu la def seen kër bi bi mu négocier ba bañ génn ko kër ga ba muy fanaan ci waañu ci la ko jëkkër ji ne man sama doom du fanaan ci waañ ñëwaatal bi ñëwaatee nag ah ci la dóor waa yaay waa ji ci la avant muy rey goro bi dóor na ko ñu arrangé waa ji dellu bitim réew bi mu delloo bitim réew nag dégg nga ci la sotti ndox mu tàng. maire bi diir ko ba ci salle de maire bi ci seen ci waxi jëkkër ji rendi goro bi. boobu nag. non atrocité boobu gaw ma ne femme ba yegg na fa nag. waaw waaw loolu loolu la. diir maire bi dee na nee nañ moo ko rey. Hmm? mais PAM quand même gaw ma ne egg na ci di ko rendi. soo xoolee photo yi ndox mu tàng su la ko sotee doo génne deret soo soo xoolee photo yi maire bi fi mu nekkoon ci lawaaboo foofu yëpp dafa takk deret. beneen bi mooy. Euh, amee ah, rendi moom ban. waaw loolu mel ne Gretchen loolu xel nangu ko. ah mais ñaata nit leen rendi fii ci dëkk bi Ndiaye Ndiaye. ñaata jigéen jigéen tiim nit di ko rendi. waaw mais Sénégal amul culture boobu. Ah, mais damaa foog ni ko sotti ah? ko sotti ndox. muy lappi lappi yaakaar naa ni doo yegg moom foofu. non ah jigéen ñemewul noonu ban jigéen moom ñeme noonu ban fii ci Sénégal. dama ne man de man man ay xibaar lañ. dañ laa jox dañ laa jox. Mm-hmm. après boole koog photo yi nga xam ne moom laa gis ba mbir ma amee. loolu laa gis. waa ji jëkkër yu ndaw si ci boppam. moom moo ma nette lii moo ma jox xibaar yii. dal mhm. ma am na. voilà beneen bi mooy ba loola amee moom mi ngi ko fekkoon ci benn gaar muy bëgg a jël benn euh, muy bëgg a jël euh, bis pour dem. Mhm. foofu lañ ko ko waxee. nu mu réagir déglu ko njaay leeral bii daal laa ci am. ba pare ñu ngi wax ne ñu ngi maa ngi dégg ñu wax ne Ablaye dafa amoon ñaari jabar Europe non musuma am benn jabar laa musa am Europe. Mhm. benn jabar laa musa am Europe. Mm-hmm. sa sa yaay yow dong la amoon wala. sama yaay man rek la jur ci àdduna. amoo woon ay sœur ak yooyu. aw ma kenn koo xam ne bokk naa moom ndey ak baay wala ndey. an ndoy baan trente minutes. trente minutes. balaa ñu nay annoncé li lii. dama woo nijaayam. ma ne ko Pape Malick. depuis ñaari yoon nga ni maa ngi lay wax ni dama jëli suwaadu. nga ne ma doo jëli suwaadu da ngay xaar ba ma ñëw. man moom sax xaw nañu xëccante wax ba wax ci xaw ñagas. ma raccroché téléphone bi. trente minutes sama diggante foofu sama kër. yëgguma sama kër ma changé bis bi si beneen dëkk noonu si diggante bi sama dëkk kër toog si shopping centre bi sama sœur bi woo ma mu ne ma soit dafay na sama yaay parce que sœur sama yaay moo ko yar xale boobu kooku tamit sama yaay mu ne ma nii sa yaay soit dafay na sama yaay gis ngeen doy bi ma toogi ci bis centre bi te xamoon na ne trente minutes moo war a def pour ma jël sama bis sama vingt minutes pour ma jël sama bis ndoy ban toog naa ci bis centre bi cinq heures de temps man xaw ma fu ma jël cinq heures de temps cinq heures ci biir shopping centre bi ba shopping centre bi ba gars yi di tëj ñu ma génn ci biti. Mhm. maa ngi jaasoo maa ngi tourné ca la woo woote téléphone ñoo ma war a woo ma ne leen booy dimbali leen ma ci lii. ngeen jëlal ma renseignement lan moo xew sama kër. sama nijaay nag ci la ma woo mu ne ma xel ñu ngi koy gérer xam naa yëg xew. moom woo sama benn rakk ma ne ko booy dimbali ma ngeen jëlali ma ay renseignement ba xew sama kër. Mhm. xam na ne xamatuma lan lay def. ndoy toog naa fi cinq jours yoo xam ne quatre jours yoo xam ne presque mburu rek laa yàq mburu mburu lu ma naqari ci xol te lii dama rek ngir yàlla suido ak adduna bu mu mën a mel sama yaay dee am bu mu nekk sa loxo lii laa ko doon wax te dama ko ko daan jooy guddi ak bëccëg ma non xam nga yàlla xam na ne. boo déggee sa waxee dafa mel ni yow daal amoon nga ci ay doute affaire yi bettu la. diggu li ma la dama ne dama ñaawoon njortu xaw ma fan ban yoon la may jaare maa ngi bëgg a maa ngi bëgg a sàmm sama doom maa ngi bëgg a sama yaay maa ngi bëgg a sàmm sama sëy lépp ma koy jéem ma koy gées xaw ma fan laay féete. métti na waaw moom est-ce que àndoon nag sagoom. waaw ñoom ñu ngi wax ne dafa dof. dara yi dof gisoo ko ci moom. dama la ne ku la gën a gën a bëgg a xaalis de mu ku la gën a bëgg a xaalis moo la ko gën a bëgg. li ma jaaxal mooy ne kay ñi mën a sëriñ te yàq na ci ay millions. waaw xam nga lépp lu ko indi. lu koy indi. jiim lu munut a nekk. senegal tànk bàyyiwuñu sëy bu nekk ci problème ñu jàpp ku jigéen ki naan ko toogal nga muñ. muñal wala téye ku góor ki naan ko xoolal ci njaboot gi. waaw fii rek lay mujj. beneen bi topp mooy wax na loo xamante ne jii su doon maay moom du doxalee noonu. Hmm. bon ku nekk sa xalaat nag mooy nee na. waaw xamul nu muy taxawee. est que day dem ànd ak jabar ji wala ndax day ànd ak yaay ji. mi tool yi amee waaw. dama leen di wax fii góor ñi seen jabar ju njëkk na doon seen yaay. jigéen ñi seen jëkkër ju njëkk na doon seen pàpp loolu nga njëkk def sa bopp. ki ngay nekkal nga def ko ci boppam. bu ko defee problème amee fooy taxaw du la jaaxal. te une fois encore ban. nañu bàyyi di muñ loo nit ñi ci lu dul wéy. ah muñ de moom. ab liggéey bu mu mënti doon loo fa mën dem ci teraanga boo fa gisatul sa bopp bu ca bu fa toog. Mm-hmm. sëy bu mu mënti doon loo fa mën a am ci njaboot boo demee ba di dund comme cest diir dire dundin woo xam ne lii lay jur mm-hmm. bu fa toog parce que mère bi dee na femme bee ko rayam ray ko fam baa nga kaso ala kuliyal leer mooy dana fa tëdd parce que mm-hmm. loo xam taq na ci ripp moom mi ñàkk na yaay ñàkk jabar ab liggéeyam jaxasoo na ñàkk na jabar doom ja ci lan mooy yëf yi mënatuloon a dem moom taxaw ne munta dem mbokki ne ko noo dana dem hmm. léegi nag yàlla bu rëddee nga effacé mu rëddaat a effacé da lay ndaw si yaay jee ko takk de moo ko tànnal ja moo ko tànnal doom ji ba ndaw si doog a sëy si ci kër gi moo maire bi mu rey ñoo doon bokk benn lal bu ñuy fanaan après quelque temps yooyu noonu sax dañ la koy xam boo demee sax moom ndaw si daawuñu tuddoo tudd moom mii ma ne la boo demee. waaw maire bi ñu rey ak ki ko rey boo demee sax daañu tuddante. d'accord ñoom ñooy rafetal naan oui sama yaay ko takk moo takk kii da koo bëgg du comme doomam. la ko def amu fi benn goro buy jàppee sa. Ah. jabaru kii comme sa doom. xoolal waxantu rek. wuyu ma maire bi benn jigéen buy sëy sa kër jëkkër jël sa yaayu jëkkër def ko comme sa yaay. am ah, am na nag waaye barke Cheikhul Khadim am na wuyu ma maslaa rek. wuyu ma moom mii moom mii moom moo ma nettali ni mu def ba takk ndaw si yaay moo ko ko proposé. ñu woo ndaw si présenté leen ndaw si bëgg waa bëgg ñu maye leen bi ñu sëy see bi mu sëy see boobu waajaa nga bitim réew bi mu sëy see ndaw si ci kër yaayam la doon fanaan non non loolu dijje bi loolu dijje bi la foofu la defee erreur jigéen bala nga koy takk xam ca tuuti waaw d'accord sa yaay la proposé mais puisque mbokkam la <laughs> yow sa yaay euh, euh, gis sama euh, benn xarit am lu action boobu rafet bu mu def te dama koo gëj a gis sax sama xarit boobu Adama Bey mhm. la mu def hôpital Fann indi fa ay ja ay teraanga yóbbu ko hôpital Fann. Mhm. Adama Bey moom maa ngi koy ñaanal. moom ci loolu la ne waaw kooku jàmbaar la parce que man dama bëgg sénégalais buy def lu baax. ci loolu la ne ci loolu la ne waaw Adama Bey félicitation waaw. damaa romb tribunal Dakar. waaw ci gendarme bi taxaw ci bunt bi war a gérer sécurité bi. waaw yor gel bi. waaw di ko defal nit ñi ñuy jàll. waaw nit du war gileem war mbaam. waaw loolu mënta nekk. mooy nañu jël ay nit. Hmm? ñu nekk ci wetu gendarme yi. waaw di defalaate gel mais yow munoo di surveiller entrée beeg sortie bi. waaw est que kenn la. kenn laa fa gis. waaw moom nga gis. moom laa gis. toujours y a un guetteur. foo fekk bu police ah déglu ma waaw déglu ma wax la. loo ma wax ci journalisme loo ma wax ci journalisme dama lay gëm. waaw déglu ma. waaw foo fekk gendarme di ko sottil. am na beneen gendarme boo xam ne gisoo ko ma nga kay ma nga leen di xool. ban moo yor li ci topp mooy. ñoom xoolee leen fa bàyyi. waaw mais non non non defloo ci liggéey bi la bokk. di li yow lan la yow. mais ci bopp la bokk. ci topp mooy soo gis guddi su la arrêté. ci topp mooy ban. ki lay laaj kayit ki lay laaj autorisation. Eh, eh, ban eh, ki lay laaj autorisation. ban affaire bi noonu nga may wax. ki <laughs> Barroso, président de la République représenté ko doon fekk la Baara Sane Dakar huit cent zéro président de la République ak ci président de la République résidence président de la République bi nga xam ne mooy demeure service situé dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 wu sama ne problème yàgg na mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale eh, AOF Léopold Sédar Senghor jaar 1960 ba 80 Abdou Diouf 80 ba 2000 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat fi lu xaare ni ba xam kii woote ba ko jot président de la République kooku kan la war a doon ak fan lay woote salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ci nga réew. ñu ngi sant bu baax. ñu laay. joxal tur beeg sant bi barikalla man la Moustapha Nguer. Moustapha Nguer di woote fan. waaye du du woote fële ca ca ca Koungheul. Koungheul. waaw. waaw Moustapha lu waral sa woote ci pale. waaw xam nga man daal damaa ñëwoon Koungheul fii. Ah. jënd si jënd si marchandise. waaw. waaye ba mu ko jënd mu pëtoon ko Ndakaaru. waaw. waaye nag ah, saa yi ah doy na waar daal li ma naq daal comme moo ko président daal. comme marchandise lan la. jox ma président moo xam moom su fekkee ci bari dafa jàpp nii. marché bi jaay soble yooyu soble soble pomme de ah. ni pomme de a yàqu. waaw soble bi daa gaaw a yàqu. waaw te lépp nu ko jël ren ko Dakar pour mën jaay waaye di boobu léegi ak dara doxul. ah déedéet yow ci korite gi jaayoo dara. jaayu ma dara wóor na suñu yaay jaayu ma dara day day doxul gën saa waay. ñaata tonnes soble waaw 25 tonnes pomme de terre. waaw laaj. waaw ñu ko. waaw bàyyi mu waaw ñoo di ko fi Dakar pour mu ko jaay waaye mas mi ci boppam sa sa ji waaye président wax ci mas mi la moom tamit. da ngay comprendre xam ne jamono ni tëddee. waaye tëdd na nga ko yee ñu yee jamono. da ngaa waroon a yemale la ngay jënd. jamono xale daa biddanti. jamono kay waxuma ne biddanti waaye daa tëdd lànk ba ñu jóg. ah waay waay lii kenn xamul lu doon saa yi lii fan la jëmal ñun. ah day na waar de. jël say millions investi ko a jaay ci marché bi waaye di boobu dara dox président moom tam nañu jàppale. déet see nga xam nga marché yi ba léegi dañuy bañ dajaloo beeg booloo bi. waaw loolay waral nag njënd du mën a baax. ah waay waay waay waay ñun sonn nañ trop waay sonn nañ trop waay saa waay saa waay. loolu la ñëpp a ñëpp a sonn ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal a na leen mën jàppale wala wala wax ko. nu mu leen a jàppale. waaw ah mooy xanaa mu ñaanal leen rek. xanaa jël ay millions mu mu mu mu naanoon ci yow. déet yéen jaaykat yi am na lu ñu leen tuufoon kat joxuñu leen dara. waaye kat joxuñu dara kat am na am na mbir mi daa demee boor de daa demee boor nag dañ ñii lu dul mbir mi ku mu am day la ku day. ah am na loolu yu dul. kon yéen ba léegi ñamu leen. ñebe fu mu koy mos a fu mu koy mos a. ah su fekkee da ngaa gis ko su ko wax ñëwee. amul lan lan lan lan danañu itteel lool daal danañu itteel lool da jàppale jàppale ñu jàppale waaye ndax xam nga ñu yor seen million dañ di war ci liggéey mu daal di ci sero moom kay bu ñëwee bu soobee yàlla dinaa di ko ah jaaykat yi ca côté Koungheul kat grossiste yi mag ya nee nañ ba léegi ñamunu an métti lool de métti lool mën na lool de métti lool de lu mu ci mën jàppale daal nañu ko jàppale ak am ak am ñuy boole xam moom xam naa ni moom mu ne bu dee tax ci noppam daal xam naa ni lan bëgg nañ ko jot déet yow ci yow ci ban raison nga bokk yow man man ci réseau de Kaffrine. waaw waaw foofu lañ bokk de foofu lañ bokk. ah kon kay bari yow waaye nag waaw wuy ma. waaw yow xoolal da ngay jéem ak ñu nekk foofu. waaw ngeen booloo doon benn jàppalante te yàlla tax. ñun yàgg nañoo jàppalante di saa na te mënuñu. Ah. ñi xam ne dañoo mën dimbali leen jàppale leen yàlla tax. loolu moom yàgg nañ ci. dégg nga ma yàgg nañ ci de. waaw suñu yàgg nañ ci. FM. Radio Futur Média. 94 FM. Dakar. équipe wàllu présidence la woon gërëm leen bu baax a baax sant leen di rafetlu ñu àndee ak ñun ci kanam tuuti heures mooy soog a jot 10 heures deux sax euh, dinañu dem ànd jéego am ministère de la santé xool tey bilan bi lan la joxe ci euh, lii di coronavirus bi ak euh, ni ñu ko baaxu test yi nga xam ne dinañ ko def ci 24 heures yi ñu génn ñaata cas la